mbooloo mi di ci jiital waa dëkk bi Thiès kii di nuyu boobu mi nga xam ne moo organiser lii ak ñi mu àndal ñëpp ah di nuyu aussi borom dëkk bi di nuyu ñi fi teew ak surtout acteurs yi nga xam ne ñooy bërekat yi ak ñi ñu àndal yëpp ah, di nuyu aussi di gërëm di sant waa dëkk bi ñi nga xam ne ñoo nangu ñu daje fi tey euh, di itam sant sama rakk ji muy Abdoulaat Gueye mi nga xam ne seen doom la doomi misira la tey laaj baatu askan wi ngir nekk maire ci dëkk bi moom nag moo ma booleeg buubu depuis ay weer ci ginnaaw euh, victoire bi mu amoon ci combat bi mu mujjee am dafa ñëw ba sama kër présenté ma drapeau bi muy lu ma neex euh, boobaak léegi kóllëre googu dañ koy wéyale ba fay ñuy daje ci Mbacké suñu siège ba dafay ñëw di ànd ak laat mi léeg-léeg mu ñëwal fa boppam muy nitu kóllëre ah lii nag dafa bokk ci suñu aada kon tey mbégte mu mag a mag lañ am ñëw fekke lii ndax gis nañ ne waaw gis nañ ne yéen a ngi dundal aada ak cosaan lii dafa am solo te li ñu gis combat de lutte avec frappe la mais gis nañ ne soxor amu ci iñaan amu ci lépp yéen a koy def ci dal ak tey kon loolu ñoo ngi leen ci félicité di leen euh, sant ci fair play boobu ñoo ngi aussi gërëm bu baax euh, woykat yi nekk suñu kanam nga xam ne lépp teg nañ ko ci temps ñoom itam neexal nañ mbir mi di féliciter aussi force de sécurité yi gendarme yi nga xam ne boobu ba léegi wax dëgg yàlla ñi ngi assurer sécurité euh, nit ñi ak euh, fexe ba mbir yi yemb ci ci yoon kon daal wax dëgg yàlla lii fête la fête bu am solo la euh, ñoo ngi engagé wu incha allah bu ñu yàlla mayee li nga xam ne moom la ñuy wut muy conseil départemental bi wala mairie bi li nga xam ne dafa bokk ci culture bokk ci sport bokk ci suñu aada ak cosaan dinañ def lépp pour bu ngeen koy organiser anam yii nga xamante ni yéen a ko defal seen bopp muy anam yoo xam ne buñ ko gisee xam nañ ne sonn ngeen ci bu boobaa ñun ñoo ngi engagé wu pour defal leen loo xamante nii dina mucc ayib te ñun ñooy jël engagement boobu tey ah, ci seen kanam wax ne bi ñu yàlla maye li ñuy wut li nga xam ne dafa bokk ci suñu moomeel di suñu aada ak cosaan nekk su si sport muy lu am solo ci yéen yéen ñi nga xamante ni ci askan wi ngeen bokk à part entière dinañ ci jàpp incha allah ba ngeen am anam yu gën a am solo organisation bi gën a am sécurité te lépp luñ ci mën a def pour jàppale leen dinañ ko def incha allah kon mën naa wax ju du bari dañ doon ñëw rek bokk ci mbir mi pare ne ko ah, yéene ngeen amoon ñuy mottali yéene boobu di leen wax ne gis nañ fii lu ñu doy gis nañ fi ne wax dëgg yàlla peuple bu dajaloo ngeen lii nii day dajale seen cosaan daf leen di gën a boolewaat kon ñoo ngi leen ci encouragé di leen wax ne lépp lu luñ ci man incha allah bu ñu amee ndomba tànk yi ñuy wut dinañ ci gën a jàpp kon boog jërë ngeen jëf. ci présidence bi ak le président conseil départemental avec le président conseil d'arrondissement Mbaye Ndiaye ak euh, Aliou Mbaye Mame Sadi ak Mbaye di remercier ñëpp di nuyu sama tool ñoo ngi lay nuyu vraiment bokk ci ñu ngi accompagné di accompagné mbër boobu nag mënuñu ci la fay mënuñu fay waa Tass ndax vraiment gis nañ seen taxawaay ñu nekk bu mu Tass mu ngi si kon lépp loo nekk dañ ca li président wax c' est vrai bu ngeen xamante ni léegi yàggul waaye vraiment pël waaye moom kon ñoo koy sant lépp lu mu def ñun ñoo koy defal te lii nga xam ne ñoo koy yóbbu jàpp naa am nañ ay mébét ak i xalaat ndax dañ ko prévenir dafa bokk ci compétence transfert ñu culture te ñun ñi bu ñu yàlla may ndam ñu gagné commune bii fii tey jii jotu leen wéytati ay parti ko mën nañ ko collecté xale yi bu kee ku fan nawetaan bu bati su ngeen bëggee tëgg làmb ngeen tëgg fi làmb ñu dagg biir tëgg en même temps le président conseil communal départemental de moom it nii donc yàlla may ndam may ñu ci département bi yëpp ndax gis ni département bi na fi loo xam ne manqué na ko bari fi loo xam ne amu fi waaye tey jii moom nii profil bi ko yàlla may moo ñu boole ak moom gis nañ ne tey jii li ñu am ci moom mënuñ ko am ci Macky Sall moo am ci Karim Wade mënu ko am ci président Ousmane Sonko moom la te moom rek li jaata yi ñoom am li ñu moom mii moom la ko yàlla may wala ñu ko supérieur mu dëkk Touba bii dëkk si département bi suñu naban nag mooy yëkkati ko jox ko département bi jox ko ensemble national dem jox ko président de la République